asalaamaaleykum maaleykum général sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké sa doom sa taalibe suñu soppe moo ñëwaat fii tey ziar la si ak nuyu si la ziar si njabootu Xaadimu Rasuul yëpp ci Touba ñëw bii nag tey dafa nekk euh, ñëw bu ma def ci biir campagne électorale ñu tàmbali tey sàkku woon ci yow nga may ma ma ubbeeku fii ci Mbàkke ginnaaw bu mu ñëwee ziyaarale si la dalal laaj la samay loxo sàkkuwaat ci yow ñaan ñeel réew mi waaye sàkkuwaat it ci yow ñaan ci lii ñu dugg tey muy beneen jéego bu ñu fas yéene def ngir suñu borom dañ koy am réew mi si coobare askanu Sénégal yëpp mu ñëwaat ci biir loolu di feddali donc taalibe di feddali it sama yéene dinaa bu ko suñu borom sottalee si gungee la ci liggéey yu yaatu ñu ngay def ci dëkk bu tedd bi di Touba ak bërëb yu tedd yëpp li nga xam ne yëkkati nga ko ay liggéey ci biir loolu mu ci rafetlu lool université islamique ñu daara ju kawe yoo xam ni yaa ko sàkku ngir mottal yéene sëñ Tuubaa bi mu amoon ci wàllu xam-xam ak wàllu daara muy daara ju mag joo xam ni liggéey bu yaatu la yaatu la te lépp yaa ko fas yéene mottalil sa bopp waaye ñu ñaan rek mbokk yëpp mën ci barkeelu ñu rafet bi taxawaay yooyu ba tax man la woon yow de Mbàkke boo yëkkati sumb bu toll noonu nguur gi war na féete si yenn côté bi jëm ci lu yombal yoon ndox mi courant ak lépp loo xam ne dëkk bi yellool na ko du wax liñ fi jot a def ndax loolu lu wax mooy sama yéene ci Touba ci fa ñu jëm ak sama yéene ci Sénégal ci fa ñu jëm bi ma ñëwee ci màggal bi daje woon naa ak homme d'affaires yi nekk ci Touba ak li ko wër ñu xam ne tey fi mu toll ci population ak ndaw yi fi xëyee laaj na ñu taxawal fii ay usines muy bërëbu liggéeyukaay yoo xam ne lépp lu ñuy jaayeeti ci meññeent mbay mi war nañ koo liggéey fii muy parc industriel bu Touba waxtaan bi am na ba pare étude yi def nañu ko kon fas yéene nañu ñu génnee ci lii ci kàttanu borom bi ñu ubbi parc bu boobu boobule nga xam ne ñii di naal dëwlin ji ñu tudde leen rasiat dèjà wane nañu euh, liggéey bi war a mën a am ànd ak usine yëpp yi nga xam ne tey ñooy liggéey dëwlin ci réew mi loolu dafay nekk rek joxoñ si ni usine boobu ni parc bi war a doxee ëllëg ngir ndaw yëpp mën a liggéey ci parc industriel boobu leneen li tax mooy wàllu mbéy ku ne xam na Touba euh, xéwal yi yaatu na fi ak barkelu yi moo tax ñu ne war nañ ko def domaine agricole communautaire ñu tool yu mag a mag ñu tàmbali ci biir réew mi yoo xam ne benn bu si ne mën na jël lu toll ci ñaari junni ndaw te lépp fi jëfandikoo ci wàllu maanaam lépp lu jëm ci légume lépp lu jëm ci wàllu ganaar ak euh, aviculture ñu mën di ko def ci dëkk bi su ko defee loolu dana nekk njëriñ beneen bi nga xam ne yéene la itam dama ci liggéey mooy ginnaaw autoroute bi Ila Touba ñu fexe aéroport bi nga xam ne tam yàgg nañ di ko wax ñu mottali ko ci mandat bii di ñëw loolu bokk na ci sama yéene jëm ci dëkk bii bari na it ay yoon yoo xam ne waxtaan naa ci ak Cheikh Bassirou muy yoon bi wër ndax autoroute bi comme day yegg si il faut que ñu am ceinture beneen bu mag ginnaaw 33 bi ñu def mais bu mag boo xam ne mooy wër moo euh, dëkk bi si ko defee ñu bëgg ñëw directement si booru jumaa ji ñëw ñu bëgg continuer jëm daara mën a dem te du am benn jafe-jafe ak yu bare bare yoo xam ne du ma ko mën a nekk fii di ci gàttal daal Mbàkke yéen la am ci yëggali sumb yi ñu naan depuis 2012 juróom-ñaari at yii ñu génn te naan yooyu yëpp suñu borom nag baaxee nañu koy programme yi presque li ci ëpp alal ji teew na lu pare en ñi ko war a joxe wane nañu seen disposition pour gouvernement ci liggéey boobu kon maa ngi ñëw sàkkuwaat bi ñaan yàlla mën ñu may ndam ci euh, taxawaay bi ñu taxaw mooy élection yi ñu dëgmal te itam ñu dugg ci élection yi si jàmm ak salaam ndax Sénégal bii réewu jàmm te mag ñi ñoo fi ñaan kon warul na mu kenn kenn kenn ku ñu jël fitna ak fitna bu jógee ci am réew kenn xamul ku muy ku muy teere moo tax ñëpp war a wax jàmm dox ko rafetali doom di koy ndax yàlla mooy kii may loolu bu leeree si suma borom moo ñu war a sabab waaye nag maye bi moom moo koy joxe te it am na fu mu koy jaarale yaakaar naa ne fu mu koy jaarale fii bokk na ci ci lu wér kon ñun moo tax ñu ñëw tàmbalee fii di la santal ba di la gërëm di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te ànd ak wér ñu yàgg di la gunge di la di taxawit ci lépp loo xam ne mébét la mooy sant di ah suñ Basiru ak mboolem njaboot suñ Tuubaa bi teew fii tey ñëw teew la si la say doom ak say njaboot ñëw naa ak délégation bu yaatu waaye yaakaar naa ne kàddu gi mën na yem foofu ndax suñu xel dalaan te xam naa ne incha allah bu ñu si